نفع لخير الله قبل في الدري بآل بدر بالوسود كدري شيخ الخديم رضي الله عنه وخناني fandar la ko suñu boroom tàqale ak lépp luy nëx-nëx ak jafe-jafe jaare ko ak jàmbaar yooyee nga xam ni ñooy malaayika yi teewe woon xare Badar bayit bii di firndeel cant gi nga xam ni moom la Sëriñ Tubaa sant suñu boroom ci may yi mu ko may ci tukkeem bi nafaale xayri laaw xablu fi ndarim bi ali badirin nilusoodi kadarim